waaye xale yi dañuy yàkkamti waaw moo tax bés bu ne ma di leen ko yedde leen wax ni ëpp naa def waaw yàkkamtikat du def lu sotti te mag ñi tabarkal la tabarkal la lu ñuy def dañ cey def seen jom lu am solo la lu am solo la tabarkal la kon nag yal na yàlla taxawu ci daraja yonent bi bés bi bésam la waxtu wu nekk ñuy daje rekk di ko tudd te am nag loo xam ne daf ciy duggaale mooy kenn ku nekk danga yéene sa moroom teraanga te loolu rekk doy na jaamu yàlla waaw yéene sa mbokkum jullit teraanga kooku doy na jaamu yàlla te loolu yonent bi la ko yàlla may ci njabootam te ñun ci njabootam la ñu bokk tabarkalla tabarkalla ah ku nekk orienté nañ la nga jëm fa nga jëm tabarkalla tabarkalla li Maodo di wax ci fitam wu rëy wi nee na sama turandoo sax taalibe la nee na cheikh ne cheikh taalibe la parce que ñëpp taalibe yonent bi lañu ah nee na ñëpp yonent bi lañu mu ni cheikh sax taalibe la cheikh sama turando mi nga xam ni ku ko tudd ñu daanu nee na la parce que taalibe yonent bi la du dëgg loolu mooy li nga xam ni ma nekk tabarakallahu ñu ñaan rek yàlla yokk yu yàlla na ko yàlla def te te te te faj soxla yi yàlla na ko yàlla faj te ñu jëriñoo ko njaboot yi jëriñoo ko yàlla na ko yàlla def yàlla barkeel ko di ñaan rek waxtu wu nekk mu mel na li góor gi waxoon rekk fiy jóge def ni Maodo dafa am kayfiya bu mu ni woon naa ko jàng waaye doyloo ko tax na sax jànguma ko ndax moom doy na sëkk tabarkalla la ma gis xaadi Mouhamad Abdarahman ku ko ëpp cër ci doomu soxna yi gisuma ko ku yéeme la te kuy faral di wax ak cheikh la ba léegi gaañu na nag yàlla dogal sëriñ Babacar di tabax benn kër ni ma àndal ak moom ak Mouhamed Yahya ñu def ca ñaan ma ànd ak moom ànd ak moom ñuy dem ba mujj mu jax boppam ma ne ko lu tax mu ni ma du ko dëkkee ci wóolu sa kanam wóolu sa gannaaw rekk dem te tollu na ca moom waaw wóolu na kanamam wóolu na gannaawam kon du ko dëkkee am ku ko dégg nag te xamul na mu koy interprété mu dal di bëgg a wax safaanu loolu sëriñ Muniru ni ko boo gisee mag muy fomp làmp te mu wóor ko ni jant du ko sooy dafa am pénc mu mu bañ mu jëppi ko loolu rek mooy li ci nekk du leneen waaye moom lu mu mës a def rek bañ pénc mi jëppi ko moo tax mu def ko waaw loolu rek la du leneen yàlla xam na ko ah ba tax na loolu itam li ciy ruuse ci barke tabarkalla yal na nu ci yàlla boole yal na nu ci yàlla boole te yàlla musal nu te kayfiyaam boobu mu ni woon dafa wóolu Seydi El Hadj ba jàng ko noonu waxtu wu nekk dañ ko koy jàngal tabarkalla te dafa metti li mu mettee mooy ba tey yonent bi shayatin yaa ngi topp njabootam yi di leen faagaagal afarit yaa ngi topp ci njabootam yi di leen faagaagal ba tax na ku ci mokkal benn faatiha sax warula ko bàyyi ndax dafa am lu ma ci xam te magama ko xamal ci kanamu Alaaji Amat bu Géey ca Abidjan mu ni ma ndax am nga wëllëre ca Zaïre ma ni ko waaw mu ni ma wax ko mu ñibbisi réew ma dana takk ndax gis naa fa fas wu weex te fas wu weex foo ko gis jihaat ñu di ci waxtaan nag ba may yëg ni ci biir avion bi ma nekk Nous benn wëllëre bu nga xam architecte la mooy architecte conseil bu état bi man ni ma mësuñu gisee ma man toujours ngi bëgg yow pour ñu waxtaan mu ni ma fi mu nekk projet Mobutu dafa bëgg ma tabaxal ko juma ca village am te tabaxaale fa église ba mu fa jógee ma ne afarit yi daañu gaañ euh, Mobutu foog ñu gaañ ko te def mu wuroon boobu ni dinañ ko gaañ ndax noon lañu mel noonu lañu mel ba tax na ñaan ëpp na xet ndax ba tey xare baa ngi fi du fi jóg te comme léegi yàlla mi ngi leen yàlla sa xiiru leen seen caay-caay moo leen xiir ci Sénégal fi mu nekk mu ngi fi fees del affaire yaa ngi fi fees dell dell dell di provoquer accident yi di fas ci sikkim yi di taal kër yi te kenn xamul fu ñuy mujjee ak maa leen ko wax te demal leen di gis moo tax damay xuloo ñoom reyanteeg ñoom bëmax nañ ma fi ba ma daanu ci taabalu weer yàlla ma defal sutura te ka ñu àndal ci ñun la bokk waaye ba muy liir lañ ko fab yóbbu yar ko ba mu léegi boo ko gisee doo ko xàmme ñu di ko utiliser nu leen neexee te bu ñuy ñëw sa kër du ñu tàggoo te bu ñu jotee ak yow ka nga gën a bëgg lañ lay jëkk a xañ ñu ngi fi ñu ngi may dégg maa ngay demati ci kër ga ñu ñafe wallahi laadim yàlla xam na ko yàlla xam na ko ñu ngi fee dell dell dell dell Sénégal ndax moome nañu fu nekk def fa caay caay gu leen neex waaye fii daal am na lu leen fi metti am na fi lu leen metti te lu ñu man ci lu bon dañu koy def man xam naa ko dinañu dem ba bokk ak yow lépp sa brosse à dents sa brosse à dents dañ koy jël dañuy jël sa lépp lépp wan la ni la su sunu doole àgg na foofu ma di seen doole àggu fa mukk parce que tooñ du doole tooñ du doole maa la ko wax moo tax ko xeeb sa bopp rekk ñu gaañ la ku xeeb sa bopp ñu gaañ la la xam na ko ñu ngi may dégg ñu ngi fii fees del waaw ba ñu yàqee réew yépp fokk ñu ñëw yàq suñu réew daara lañ ci wan moo tax ñu bàyyi leen xel baax na bàyyi leen xel baax na ñi ci ñi ci bëgg yonent bi nag ñoom it ñu ngi summeeku lu ñu mën ñu ngi koy def lu ñu mën ñu ngi koy def ñu baax lañ ñi ci bëgg yonent bi ñu baax lañ te bés bu nekk dama koy wax sama waa kër bu ma nekkee Paris bu ma nekkee feneen dama leen koy wax te ci gis xam ni ci ñoom la bokk dama leen koy wax di leen kii ci la bokk kii ci la bokk ci ñu baax ñi la bokk yàlla xam na ko bu dee ko bon man leen kii ci ñu bon ñi la bokk loolu moo nekk léeg-léeg damay dajeek ñoom waxtu wu nekk am na ci kenn ku ma mës a mu dimbale ma ci wax ndax daf ma ni tu gères mal tes avoirs ca wax mu wax ma ko ma ree ni ko ma ñëw dem di jël paquet bi ma doon jënd ñëw rek gisatuma kenn fekk dem na bu yàgg waaye da ngeen da leen di gis ba ci gàmmu gi bi ñoom ñépp ñi ci am jabar ñépp seen soxna yi ñëw nañu ci gàmmu gi ku ci gën rafet sa morom nga nit kenn ku nekk indaale doomam bu tuuti والله العظيم بروح لا بروح لا غير دو في جوك نون رك نو مانا خام سونو بوب آه، تا باغ لينا ماي نك فونو جار يقوني يقوني نانيو ديف زاير باخو pour rekk Mobutu dafay tabax juma lolou metti len ah, ñu teg ko feebar tas rew mi mais fu ñu dem lolou lañ fay dem te yi sont très puissants ma wax la ko ils sont très puissants ñu ngi fi ñu ngi may dégg buma ma dematee rekk xare bi tak lolou loolu dafay am kon nag ñaan du doy ñaan du doy ah, yàlla joxe yàlla ko joxe ñu di ci défendre sunu bopp di ci défendre suñu njaboot di ci défendre sunu réew di ci défendre suñuy liggéey sunuy mbay tabarkalla tabarkalla ëpp naa xeeb ëpp naa xeeb dañ nu sonnal boo ko laajee waa kër gi ñu wax la ko dañ nuy sonnal ba doo xamati looy def doo xamati looy def am na bés ñu jiit la ñëw waaye dama gis ka ñu ànd rek man leen kii doomu jàmbur la fii la dëkk bokkul ci ñoom bokkul ci ñoom mukk mukk mukk mukk xaw ka ko doon ñawal costume am ba fu mu ne waaye bu doon ñaw fii dana am ci àllal lu dul jeex wallaay waaye ñu ngi ko séq ñoom ñëpp sol seeni blouse am luñ koy wutloo te xam naa ni ci daara ji lañ koy wutloo naka lay yëngu rek ñu fëx te fu fu ne mën nañ fa jaar fu nekk mën nañ fa jaar pour dem seen yoon seen may la seen may la seen njàng la seen may la seen njàng la boo gisee tubaab yi léegi wax ni tàrde nañu tardé goo xam ni foog ñu dabatal ndax li tax il y a ak tab yi di jariñoo xaybu te ñun mënuñu jariñoo xaybu kooku duñ ko nangu

liñ ci def ba du la lakk Afrique lañ ko jële alal la seen alal la ñoo ko moom waaye ñoom ñoo koy jariñoo ci liggéey ngay jënd rek ñoom ñuy defar ngay jënd rek ñuy defar ngay jënd rek waaw ba dootuloo am dara ba dootuloo xam dara léegi nag ñoom nangu nañ ni riba bi tax na seen lépp yàqu man leen riba bi bu ngeen ko boole woon ak sopp yonent bi du leen yàqal dara dara la leen dul yàqal parce que jamono bi jamono riba la jamono riba la yonent bi boo ko lekkee du la wàññi dara parce système bi ci boppam mooy système mu kon nag lenn rek moo la mën a musal mooy nga sopp yonent bi leneen amul mais riba riba ku ko daw dootoo lekk ma wax la ko riba ku moom rek a fi leneen amul leneen amu fi Maodo junj na ko Maodo junj na ko parce que nee na loru lorooy tax jullit lekk médd te dañ ko koy bal loru mooy tax jullit lekk médd te dañ ko koy baal moom doo ko wax pexe amul ku lekk rek lekk nga médd boo ko weddee nanga seetlu sa bopp moom kay xanaa rek yàlla muur ñu malaanu sutura rek moom rekk la du leneen tabarkal la tabarkal ah kon nag yal na sutura si yàgg yal na sutura si yàgg ndax sutura rekk moo am solo Maodo dafa ni yéen a ngi jëm ci jamono yu nga xam ne bàyyi leen xel ñett bàyyi leen xel ndax bés bu ne kàddu goo wax bakkaar lay doon kon bàyyi leen xel istixfaar bàyyi leen xel salaatu ala nabi yow yonent bi rekk nu mën a rawale Maodo moo ko wax ne bàyyi leen xelit ñaan sutura ñaan sutura ndax borom kër sutura rekk ko jig waaw Maodo ko wax nee na borom kër sutura rekk ko jig waaw ndax moo sutura téye kër nit téyewul kër sutura moo téye kër yàlla xam na ko moo tax mu daan ko wax moo tax mu daan ko wax kon nag yal na yàlla matale sutura si te itam xol yu baax yi la yàlla di leen muur ba yàqkat yi du jot ci ñoom yal ko yàlla def ndax itam fii nag nit ñu baax a ngi fi nit ñu am générosité ngi fi danga koy yëg ci ñoom dangay ngay dem ba da ngay rus sax yow da ngay rus ndax boo sañoon mel ni ñoom tabarkalla tabarkalla nit ñu baax a fi nekk nit ñu baax ñoo fi nekk moom rekk ëpp na sutura si fi ne ñu di ko xotti kooku daal ku nekk war nga ci bay sa sas yàlla bàyyi fi suturam bi fi nekk nu jariñoo ko ci turu yonent bi yàlla ko yàlla def fa tabarakallah madam Maodo wax ñett yooyu ni moo fi na ciy sax ndax moo fiy mujj moo fiy mujj ah ak nee na itam bu leen gis ku def safan rek ngeen top ko diko ak ndënd diko wër neena jamono bi ñëw def safan daf ci yomb te nag al waqt liman laana lahu fa waqt wa illa fa maqta nee na bul songu jamono mukk ne dangay reyanteeg moom ne seetal foo ko jaar rek naxanteeg moom bëri ci waaw loolu la wax al waqt li man laana lahu fa waqt wa illa fa maqt waaw loolu rek mooy li nga xam ni moo ci nekk rek mooy li nga xam ne moo ci ne man dama koy seet ba mujj ma ni am am na ñu xamul seen bopp am na ñoo xam ni ñi àndoon ak yonent bi gënu leen te ñu ngi fii ci Sénégal yàlla xam na ko yàlla xam na ko ah yàlla nag moom mooy tànn du càggi nag buy tànn nag ni par doomu sëriñ bi lay tànn walla doomu waliyu bi lay tànn moom mooy tànn ku ko neex ba Makka lakkee ak Madina kan la tànnoon Buusiri imaam Buusiri la tànn ba moom moo dalal yëf yi ñi doon saaga yonent bi di saaga Makka naan ñëw di nangam nangam fa mu leen jaarale kenn mën na ko nettali wax dëgg yàlla ah moo tax kenn du xeeb sa bopp kenn du xeeb sa bopp ndax bés bu la yàlla soxlaa dina lañ sant pour nga jëfal ko te loolu mooy tawfiq yàlla xam na ko mooy tawfiq yàlla nu yàlla defal tawfiq yàlla nu yàlla defal tawfiq tabarkalla tabarkalla baax gaa ngi fi xol yaa ngi fi da ngay waaru sax da ngay dema dema dem ba da ngay waaru tabarkalla tabarkalla tabarkalla tabarkalla nit ñoo xam ni rekk seen xul bu ñu sañoon ñépp am lu baax am na fi bare na fi du jeex yàlla xam na ko kon nag yal yàlla yokk sutura te yàlla wéral yaram yi yàlla yokk wërsëg yi yàlla sagal njaboot yi te jigéen ñi itam eh, moom sunu maam Hawa mooy seen patron tabarkalla la bu bu yëpp bu ko yàlla bindul woon sunu maam Aadama du xam fu mu jëm ba tax na ñoom itam ñoo nuy wéttali ñoo nuy sagal surtout ñoo nuy sagal te loolu lu am solo la lu ama am solo la kon nag di leen bàyyi xel lu am solo la dama soowoog sama soxla ma saaga ko mu dem ba ci Babacar Sy ni ko Cheikh daf ma saaga Babacar Sy woo ma ma ñëw mu ni ma wax ma saaga bi nga ko saaga wax ma ko seetal loolu wax ma saaga bi parce que su delloo ci xas dootoo fanaan ak moom ci nekk su fekkee delluwul ci xas nag balu ko àq boo ko ruusee balu àq làmbal sa poche lu ci ne nga jox seetal loolu pour wax la ni ñoom wéttal lañu kenn waru leen saaga waaw wéttal lañu kenn waru leen saaga pànk lañu nag ma wax la ko wallaay wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan kenn gënu leen tabarkal wallaay ndeysaan loolu kenn mësu ko gis seetal loolu saaga rekk ñu ni la foog ñu seet saaga bi ndax dafa dellu ci xas walla delluwul ci xas bu delloo ci xas rekk dootuloo fa fanaan bu delluwul ci xas nag ah nga baloo àq boo réyee nga dindi alal joxe loolu rek mooy li nga xam ni moo ci nekk waaye sunu maam xawwaan ni mu daj ngir jàppale sunu maam aadam loolu dafa ëpp loolu ëpp na jigéen wallaay moo tax daal keroog la ma góor gi wax sëñ Babacar ni ma man dama defe ne woon baax. comme sa maam Cheikh wallaay nii la ma ko waxee ci gémmiñam dama dama defe ni woon dangay baax comme sa maam Cheikh Anta keroog bu mu jëlee sa bàjjan ca ndar mu ni ma def ma woo ba ma ñëw mu ni ma waaw ah, wutal ko téléphone wutal ko téléphone ma ni ko waa papa téléphone bi pour lan la mu ne bu ma xëyee laaj ko ndax ndékki na wala ndékkiwul sëriñ Abdou Lahad nee na ma sama Cheikh ku baax la wallaay moo ma ko wax ci làmmiñam ñoo moo tax bi ko tubaab yu bëggee sonal sëñ Babacar dafa jóg dafa jóg rek takku ne na ñépp jóg nag parce jot na wallaay seetal loolu seetal loolu ni ma màngeek leetar yim ci bind yépp danaa ko dajale jox la ku dëgëroon fit la sëriñ Abdou yàlla xam na ko euh, dañu toog ilimaan ñëw seet si ma ni ma man de dañ may bind lettre rek di ma saaga ni ma danga bañ murit saaga rek ni ma danga bañ murit loo ci xam ma ni ko demal ba ca sëriñ Abdou nga wax ko ko te bu ko wax keneen mu dem ba ca moom ma wax ko ba àggal mu ree ni ko gis nga carton bële mu ni ko am ah, mu ni ko ay ka lettre anonyme rek a ci ne ba fees te dañ ma naan ay ti tijaan lañu te mu wóor ma ne duñu tijaan duñu murit ñu koy bind ay saay saay rek lañu wallaay ndeysaan ñu ko mën naa la jox nga yóbbu ko sax jàngulu ko kon kon lii ngay tawat di xam ni ëpp nga loolu mu ne ma dama mujj rus sax wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan góor gu amoon fitle la wallaay góor gu amoon fit te xaritu benn bakkanu wallaay ji Ousmane bu kaw lax la yàlla xam na ko ndeysaan ndax daf daan def commerce tabarkàlla foofu laa laaj Ousmane daan jële yëppam yëppam nee na maa laaj Ousmane ci ñi tax ma nangu ñëw tuubaa ca la bokk deman man dama bëggoon rek ñu bàyyi ma ma continuer sama commerce waaye rekk ñu soow ma soow soow surtout moom mu soow ma soow soow ba ma xam ne rek ñoo am dëgg ma xam ne ñoo am dëgg yàlla xam na ko yàlla xam na ko sunuy jur lañu yoo xam ni lu ne yéene nañ nu ko lu nekk sëriñ Fàllilu dafa yónni bés Cerno Amaan Mbeng lu ko demal wax Cheikh ko na rocceeku ñëw seet si ma dafa am lu ma waxam ma rocceeku dem seet ko mu ne ma dama bëgg ni sa papa daan jëfandikoo nga jëfandikoo ko mooy daawul def dara te waxu la nga téléphoné ma yëgal ma ko waaye yow damay toog rek dégg coow la ca marché ba ñu ni Cheikh Tidiane la tëj nañ ko jakaso dee ma ko yëgal wàcc dee ma ko yëgal dee ma ko yëgal ma ni ko baax na mu ni ma acte ah, ya ya yow yaa nekkoon intermédiaire bi yaa ma daan téléphoné yaa ma daan téléphoné kon dem ko yëgal waa ji damay toog rek dégg coow la ca marché ba waaw ma ni ko pexe amul mu ni pexe am na kay wallaay ndeysaan seet tet tet boo amee way jur yu mel noonu kay sant yàlla sant yàlla tabarkalla tabarkalla tabarkalla ku juboo woon nag sëñ Babacar la tabarkalla am na bés mu ne ma wax ni ma mu ne ma gàcc mu ne ma gàcce la gu rëy la waaw yàlla xam na ko mu ne ma gàcce gu rëy la tubaab nekk intermédiaire ci diggante sëriñ si di ko defar di defaraat mu ne ma gàcce bu rëy ci ci doomu jullit yi fi nekk mu ne ma keroog bi ma seetee gouverneur te dama ko soxla woon mu ni ma gise nga ak sëriñ Babacar ma ni ko déedéet mu ni ma ndax baal nga ma ma wax la benn baat nee na ma ni ko waaw mu ni ma fexeel ba gisee moom fexeel ba moom ndax àdduna dina soppeeku te yenn a bokk héritage mu ni ma seetal li te tubaab la tubaab bu xonq jooyu moom ma ko wax tabarkalla tabarkalla waaye man dama nekkoon kalam bi may dem nag mi ñu ngi ko defaral benn voiture bu jógee Italie ndeke def ma may voiture bi te yëguma ko bi ñu ñëwee ba ca kër ga may tàggoo ak chauffeur bi chauffeur bi ni ma ah moo ne bu ma ko fi bàyyee woon it góor gi du ci wax dara te ma ne ko wax waaye nag kaay am na loo xam ni surga moomu ko voiture bi du voiture surga te man surga la ma ni ko ci góor gi rek la jekk waaye jekkul ci man ndeysaan pour wax la rek ni yu ci bare bare bare tabarkalla tabarkalla yàlla nu ci dimbale rek ngi di ko jëfandikoo itam muy nekk njëriñ tabarkalla tabarkalla loolu rek mooy li fi nekk ñu bàyyi ci xel nag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 loolu kenn mës ko gis ah dama nga ni rekk ku ku ku ku ferul ijje ku ferul ijje warul dal ci kaw maftu ale loolu jàdduwul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 dag sa go rek mo ഡെക്സഗോറിക് മൂക്കൻ വർക്കല്ല ചുവർക്കല്ല wanda rek tabarkalla de ni be soj meeg yeb faté nan ko léegi ay yalla ak sen jëm ak sen taxaway di len ñaanal ngeen nah, di ñu ñaanal ndax mag ñi li ñu fi baye doyna na sëkk dañu dañu jàpp alaaji Cheikh Kan ca kawlax ñu arrêté ko te alaaji Cheikh Kan sëriñ Babara ko koy yar moo ko jàngal mu fekk ma ci prison ba man lañu jëkk a yàlla xam na ko régisseur bi ñëw seetsi si ma góor gi mënuma ko bàyyi ci prison bi damay dem ca président wax ko dëkk ñu bàyyi góor gi mu dem ñibbi këram la góor gi deful dara ma ni ko fekk xale yépp ñu arrêté leen ndax nee ñu dama doon préparer coup lu may doyee coup lu ma koy doy ma leen di laaj coup d'état mooy lan Alaaji Cheikh Kan nag ni ku ku jàpp Cheikh Tidiane jàpp ma nu may def pour ñuy jàpp ma commissaire bi ni ko defuloo dara luy war ñu jàpp la mu ni ko déedéet waaye am na loo xam ne bu ko nit defee ñu jàpp ko lan la mu ne ko saagaal Senghor mu ne ko lool rekk mu ni ko waaw mu ne ko léegi nga jàpp ma daal di dem bind lettre Senghor saagu ko ca kawaram ba ci weyam ñu arrêté ko mu ne waaw kay sama jarbaat ci prison bi ñi ñi mu bokkal daara ci prison bi man ma nekk fii di xoole te jurle foog ma dem ci prison bi man itam wallaay ndeysaan régisseur bi rek comme ni ma rek fokk fokk ma dem ci président góor gi daal du ñemewuma mu defi fanaan sax ñemewuma ko ma ni ko teen ko bàyyi Cheikh génne ko moom moo ko gënal ni ma naka la ko Cheikh di génne ma ne ko yomb na ko ma gis alaaji cheikh kan ni ko kay fiye cheikh bi muy jàngulu pour ku nekk ci prison génn ma ni ko ñëw leen def seen géewu wadifa jàng kay fiye bi fa lañ ko fañ ko doon jàng fa lañ leen fekk ak kaar bi leen jël si pour ñu dem ñibbi yàlla xam na ko fa ñu ko doon jàng fa lañ leen fekk kaar ba ñëw jël leen ñu ñibbi yooyu yépp ñoom ñu ngi ko fi bàyyi tabarkalla ndax jaboot yi lu mat a bàyyi xel la tabarkalla tabarkalla tabarkalla waaye réew mii de bu ñu ko bàyyee ak afaarit yi accident yi dana yokk feebar yi dana yokk mara tali tooñ yi dana yokk kon nag ku ne war nga xam sa bopp ku ne war nga xam sa bopp parce que itam nag loolu dara jaru ko lu ko jar caat dara ko dara jaru ko dama dama dem ci benn dëkk bu nga xam ni ka fa nekk dictateur biir la mu desul dara ma xëy rek ñu jox ma carte d'invitation ni ma dañ la invité ca foyer militaire yi nga war fa reere ji ma ni baax na ca guddi ma dem reer bi ñu reeree ba noppi ñu jox ma benn kayit journal